سلام ربنا دائما برايا كوي فيري تنابه أن نور الختم لي لكم قد حل في خيمة من أرهي يكفارنا على نبي والي سيدي جتي سلام ربنا دائما جفلني جيانا أن عاترا بخير خير البخير وأفريس سجادة تكريما على نبي وعلي سكتي جتي jëf leen ni ci yoneen xaalal malaa'iku abwaabu samaa futihat kazal jinaan wa nuuru Seydi Maalik alaa nabi wa alihi ajma'iin salaam rabbina جاي لا ويا خديجة وعلي وابن حشتين ومن بدعوتي سبيون يا على نبي أجمعين سلام ربنا دائما سبيان ياغن ثم بن عوف وسد سابيا لخي تشكو لخي تشكو لخي تشكو سابيا أبو بكر سابيا yango ana Umaru sahaba yango ana Usman sahaba yango ana Aliyu sahaba yango loxo yi ca kaw sahaba yango soppe Sëñ Babacar Si sahaba yango soppe Sëñ Babacar sahaba yango soppe Sëñ Babacar Si sahaba yango ko mu jaaral loxo ca kaw ko mu jaaral loxo yi yonent bi يا رسول الله قوم جار يا رسول الله انا رودي بي يا رسول الله يا رسول الله ne neel ma raw di bi ya rasulallah ya jara màggal gi neel ma raw di bi ya rasulallah ah. sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ya jara màggal ana waa kii ya rasulallah رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا يا رسول الله يا رسول الله أيوة يا لين يا لين يا لين بالله شهيدا محمد رسول الله والشدة على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجود الأسد السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كالزرع أخرج شرعه فعاذره فاستعلمه فاستوى على سوقه يعجب الفراء عليا في الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجرا عظيما ايوه كونوا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحمون ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي حملنا باب المقام لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب yaa jara magal sëg baa Madina waa ay waay Madina yaa Rasulallah oh, yaa jara magal ma Maodo yaa nu xamal yonent Maodo yaa nu xamal yonent yaa Rasulallah oh, yaa jara magal ku fi gàmmu ci yow la ko gise yaa rasulallah yaa jara màggal moom la de alaaji ma Maodo yaa fi xewal burdu Maodo ku fi burdu ci yow la ko gise yaa rasulallah awa awa Abdalaay Ja doomi Abdalaay Ja doomi Abdalaay Ja doomi Abdalay Muhammad Abdalay ku jub doomi Abdalay Cheikh Taka jub Mame Abdalay Cheikh Taka Hashim ko jub Mame Malick Hashim Abdou Manaf ko jub Abdou Manaf Hussein ko jub Hussein Kiram ko jub Kiram Murata ko jub Murata Kaab ko jub Kaab Luway ko jub Luway Ghalib ko jub Ghalib Fir ko jub Fir Malik مالك مضر كنانة خزيمة مدركة إلياس مدر مدر نذار معد عدد كل حزب بما لديك فريق لختنا ويتالي بشر مام خليفة نيقل بمودج لك لك قدم جنين من الأيام دانين ويتي جاني مام خليفة موني دانين ana soppe yi yoon nen kuba ci yoon loxo yi ca kaw ana soppe yi yoon nen kuba ci yoon loxo yi ca kaw spécialu Mam Maodo TFM lay xewe spécialu Mam Maodo TFM fa lay xewe ana ñi bëgg Mamadou Lam yéen ku ko ci jaaral loxo yi jàkko Mouhamadou moo di turam lu baax yelloo na nag yow loo mën a wax doo paase kii baax na loxo yi bu guddi xaaje ba ñëpp di nelaw loxo ca kaw ñu dunu nelaw dani fanaane tëgg yondeer loxo yi nabi jar Mustafa jar na ko Serigne Cheikh Al Maktoum yal na ko Yàlla moo demoon Ndakaaru jël fa gaynde ga gaynde yóbbu na gaynde bàkku leen sëtu Maodo la bi diine saaji na doomi soxna ya démb Cheikh bi jàll nu wàlle bàkku leen sëtu Maodo Cheikh bi diin ba jóg daw du mer ba tey ak di ñaan ma toog du yox yaxi bànk leen sëtu Maodo am na borom Serigne Cheikh ay borom ku bàyyiwul dugg ruq dina fekk la ci biir ruq di la rek sa digg rek Serigne Cheikh ay borom maam si amoo morom waaye ana soppey Seydil Haaji Maalik macha allah jëfal nga yàlla sa borom taggi rasul lu ñëpp yéem tanti taggam ya jël nga ko moo tax Seydil Hadji Malick ñaari rakka la daan naafilu ko di benn bi de jàng fatiha ba xara ba mariam ji des mi jàng fatiha mariam ba naasi le prince xam nga li ma wax Maodo ñaari rakk la daan naa fi guddi benn day jàng Fatiha Baqara ba Mariam ci des mi jàng Fatiha Mariam ba naasi eh ñaari ràkk la daan naa fi la guddi benn bi day jàng Fatiha Baqara ba Mariam bi ci des mu jàng Fatiha Mariam ba naasi moo tax oustaz Modou Fall Maodo mus nay <coughs> naa la benn waay ni da koy toppandoo waaye daa mujj sëlmal Maodo ni ko dëng koo mën man nga xam ni su ma kàbbaree sama bopp bi ma nga jëm juróom ñaareelu asamaan sama tànk yi juróom ñaareelu suuf tàccu leen Seydil Haaji Maalik su ca jugee nag nga dégg nodd ga Bilaal moo daan noddal yonent bi te bu ñu la yoroon borom ahadun ahad tey nga dégg waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar tey waaw yaakaar naa ko nag ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah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 tagg rasool lu ñépp yéem tanti taggam ya jël nga ko tang ba yonen ba tàmbalee nekk di leer nga tàmbalee xilaasu zabbi jël nga leen fi leer gi jaar wax nga ñu ko wax nga ñu kiiraay ya mu doon sàbbaale yàlla ki bindoon wax nga ñu géej yi dogoon na mu ca may nga wax nga ñu abraha ki ñayam wax la ko mer la wawaay ba mu jaam ca kaaba ngir mabbu ko dem la ko ca dal wax nga ñu ko wax nga yónneen kañ la juddoon wax ka ko dooñ wax nga ña doon yi yaayam ba kanam leer ya fa jolli way nga ko si singaari wax nga la xewoon ci tiinu zamzam Cameroon xiisa ki teen ba ngir kañoon yi mu jojo wa nga ñu ko wax nga ñu baayam Abdoulaye takkiinu soxnaam wax nga baay ba ñaani woon baay baay baay ba ko may ba jaxaay wax nga ñu ko fi may daanelee wax nga ñu gàddaayu Rasool wax nga ñu doon teeru Rasool wax nga doon Rasool ci biir Madina topp ko alaaj paap alaaj paap yëf na waar ah, mi ngi